ay vers vers souveraineté ce sont les anciens étudiants de et cette meute d'analphabètes qui se trouve dans notre pays. Mm, kooku xam nga lu soxla su ngoon jotee nga jox ko 200 mu dem jëndi fataaya bu mu lekk soo ko nee il faut qu'on s'enferme il faut qu'on serre la ceinture du la déglu. Ah moo tax courage la laaj. Mm-hmm. pas une volonté maintenant. Mm. Parce que j'avais di tantôt, on est indépendant, mais on n'est pas souverain. Maintenant, il faut qu'on quitte le vocable de volonté à courage politique. gis nga suñ duggee ci courage politique on peut faire ce pays. mais courage boobu gisoo ko ci Ousmane Sonko. non Ousmane Sonko n'est pas président de la République. oui oui mais. pas président de la République le projet aussi hein. j'ai dit il n'est pas j'ai dit il n'est c'est à dire c'est-à-dire on a xam nga man damay bañ ñu def erreur. Ousmane Sonko n'est pas président de la République. On a un président de la République qui est élu sur la base d'un projet. Et c'est celui qui doit décliner la vision. C'est ça la réalité. J'ai dit, c'est pas lui le porteur, même s'il est porteur du projet, il n'est pas président de la Absolument, on est d'accord. On est d'accord. Et am na nu muy demee yu du duñ ci ñu ci am na nu muy demee waxuma am na de dama ne am na nu muy demee yu bari duñ ci jubóo mm. parce que les deux styles des hommes bokkuñ faatu ñaari style yi bokkul mais par contre par contre côté boobu noonu grand man si sama gis-gis man man par contre Adama man man j'aime la contradiction xam lan moo man lan moo ma doon tiital mooy Ousmane Sonko wax rek Diomaye ne ko na wala président Diomaye wax rek Ousmane Sonko ne ko d'accord na tant que am na possibilité et heureusement moi ça me ça me rassure mais na ko mu wane ni Ousmane Sonko ci boppam wax na ne bëri na yu mu waxoon Diomaye ne ko c'est dans pourtant, notre c'est dans notre cheminer. intérêt c'est dans notre intérêt parce que dina permettre dina am kenn ko waaw équilibre day am mais bu dee ñoom ñaar parce que ñaari nit ñoo gis lu ñu wax rek ñu d'accord mooy am na ko xamante ni il dit pas son opinion grand parce qu'on peut pas d'accord je vais je vais te dans ce qu'il est Sonko est dans ce qu'il est oui mais tôt ou tard tôt ou la session il y parce que Diomaye est dans ce qu'il est. Ousmane Sonko xam nga nee naa la les les ñaari nit ñi bokkuñu su ñu defee dañu def physionomie nit. kii li ko tax ñu fal ko xam na ko parce que moom la ñu fal il porte ça sur le pois oui c'est un xam na ni suba dañ koy demander compte devant le bon mu neex nit ñi mu naxari nit ñi dina ci def la mu ca war a def il rendra compte dina ci def la mu ca war a def fulla ak fayda bu mu war a won yeneen partenaires yi dina leen ko won ba nga xam ni dina ci def la ma cay war a def mais oui y a quelqu'un qui passe à être président de mais le premier scap est-ce est-ce qu'il a dit une fois qu'il <laughs> ko dindi loolu mën nañu mën nañ ci juum hmm. mais a quelqu'un qui pense à président de la République y a un président de la République y a un président de la République foog nga am interview ak ak j'ai dit y a un président y a un président de la République y a un ambi y a quelqu'un qui a l'ambition d'être président de la République et c'est légitime hein l'ambition quand on est premier ministre on doit pas avoir l'ambition d'être président de la République ah bon oui on doit avoir l'ambition d'accompagner le président de la République oui non il il l'accompagne loolu tax peut-être dans loolu tax ma ne la sa perspective loolu tax ma ne la mën na bëgg benn bés non j'ai dit quoi ki quand on t'a élu suñu la falee président premier ministre. Mm-hmm. tu dois pas faire l'ombrage au président de la République. Mm-hmm. ce qu'il en train de le faire. est-ce que tam du perception am ngeen am ngeen am ngeen. est-ce que du perception am ngeen bët. parce que yéen yéen bi ngeen nekkee xam nga xam nga xam nga nag xam nga xam nga nag Fatou xam nga xam nga faatu man xam nga Fatou man j'ai mm-hmm. depuis que je suis là yaa ngi naan yéen. depuis que je suis dama taxawee taxawaayu chroniqueur nekk au juste milieu. et ça par contre. nekk au juste milieu. tey moom grand dama kontaan si. gis nga dinaa wax lenn. loolu yëpp da lay dinaa wax lenn ak ni muy doxee parce que dis nga nit ki nag su la neexee nga nga ne gisuma quoi. Hmm. nee naa la jomaay mi ngi ci li mu ne. mooy. en tant que président de la République il est en train de dérouler son son son ngi il est en train de dérouler son agenda de chef d'État mais y a quelqu'un qui déroule pas de premier ministre. kon parce que le premier ministre a un il faut qu'on accepte te c'est gérer l'action gouvernementale. il le gère pas. Hmm. kon lan lay def. ban reproche nga mën a def. ubbi leen ubbi gët ngeen xool. lan lan nga mën a lan j'ai leen seen i gët xool. Hmm. su nekkee xam nga premier l'action gouvernementale c'est quoi. Hmm. est-ce que ma je je que je vois. mooy c'est quelqu'un qui a l'ambition d'être président de la République. d'accord. et c'est légitime. vous lui prêtez une ambition. j'ai dit c'est légitime. j'ai dit c'est légitime. mais pas en tant que premier ministre. mais lan nga koy reprocher. te tey. Hmm. lu mu waa defal ndànk rek soxna si soxna si ces questions là je vais pas je vais pas tomber dans ça li ma xam mooy suba su ma su amee. Hmm. du bett. ok parce que nag. Hmm. ci république lañ nekk. république dafa am manière bu muy fonctionner y a ce qu'on la l'orthodoxie républicaine mm. le président de la république est dans l'orthodoxie républicaine et c'est quelqu'un qui apprend très vite vous avez écouté son discours donc il n'est plus stagiaire alors j'ai dit non j'ai dit c'est quelqu'un qui apprend a non, j'ai dit c'est apprend c'est quelque non c'est normal parce que on a de grands messieurs dans cette république là j'ai dit on a de grands messieurs notre service de protocole du ñu ay cuune bokkuñu Pastef ah ñooñu oui c'est de grands messieurs nos diplomates ay punkal lañ suñ la téyee ba tabax la di nga changer ci une semaine manière bi ngay doxee manière bi ngay waxee manière bi ngay defee lenn lépp ci semaine ñu tabax la def ci yow nag homme d'État vous avez écouté son discours non vous avez vu un homme d'État parler. Mm -hmm. vous avez vu un président de la République c'est-à-dire tu te sens fier d'être sénégalais quand tu entends le président de la République parler voilà parce que ñun loolu lañ bëgg ñun. Mhm. mu neex ñu mu naqari ñu mooy suñu njiitum réew. ba juróomi at yi weesu. Mhm. dañ ko war a aar dañ ko war a yiir dañ ko war a protéger. wala. Mhm. absolument on est d'accord. parce que mu neex ñu mu naqari mooy suñu njiitum réew. maintenant kooku. su nekkee dafa am premier ministre boo xamante ni il a l'ambition d'être président de la République ça pose problème c'est ma perception. Mmh. c'est ma perception suba su clash amee du ma bett. parce que les actes les actes les actes mhm. qui son en train d'être posés parce que lu bari lu loo xam lu bari loo xamante ni sénégalais yi xamuñu ko quoi. sur les sur les sur les nomination mhm. sur les nominations parce que suñu président de la République moo ne ma man xaw ma xaw ma woon Mabouba Diagne premier ministre mais c'est sur proposition du premier ministre. proposition premier ministre tabb nañ ko. loolu normal la. proposition premier ministre tabb nañ ko. mu war a taxawal gouvernement. mais naturellement amul problème. Euh, il y a jamais eu de consultation. ah ça c'est vous qui des ministres qui sont sortis pour dire qu'ils ont été consultés. il jamais eu waaye fan nga sorti. da nga ko yow. on nous a lu on nous a lu une liste. oui man gisuma consultation non mais des ministres quand même qui en ont parlé. grand pour information. la ministre des sports là pour ton non non non pour votre information. c'était pas Ousmane qui devait être le PM. Ah c'était qui. Touré. Ah, il a refusé. qui on a proposé à Touré les affaires étrangères elle a refusé. li tardeel gouvernement bi poste premier ministre bi ci la bokk li tardeel gouvernement bi yenn choix des postes des portefeuilles ci la bokk. Ousmane Sonko dafa bañ. Euh, non déggoo déggoo déggoo li ma wax dama ne. la tardeel gouvernement bi xëccoo am na diggante Ousmane ak Jomaay yi Atepa moo nekkoon ci diggante bi di dem ak ñëw. loolu kay li Sénégalais kon da nga bëgg wax réeróo bi ngay yaakaar di njort kon réeróo boobu amoon na déjà. mais bien sûr non bien bien sûr oui mais en fait euh, monsieur man dama jàpp ne discussion mën na am Fatou. tey man mën naa proposer man je suis le chef du gouvernement yow ngay président ma ne la dama bëgg jël Fatou Thiam def ma sañoon du doon Fatou Thiam keneen lay doon. ñu waxtaan maa yow après après on décide. un chef d'état finalement on peut. un chef d'état ne fonctionne pas comme ça. ah mais comment il fonctionne hmm. tere nga am autorité sur les sur say un président de la République une autorité sur les un président de la République doit avoir une autorité sur le directeur général. non il a des il a il a l'autorité sur sur tous ces. il n'a aucune autorité. Diomaye. xam nga ko détenir l'autorité. Hmm. c'est Ousmane Sonko.